ngeen partagé live bi mu gën a yaatu ñu bëgg tey suñu mbokki jullit ñëpp tey ñu yeewu ci nax yi nga xam na si ni tey ñoom lañ moom lañ ñuy yàgg a nax yàgg nax suñuy maam suñuy maamaati maam léegi nag lii saxul ci diine li ñu soxla rek mooy ay preuve dañ leen di wan comédiens yi bu paree nag ñu wan leen li nga xam ne si tey seen sëriñ si moom lañ bind duñ leen sosol si dara képp ku fi géewal xadratul jumaa mbaa nga géewal fi wasifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ñëw Gut. am na ñuy weddi ni yonent bi du ñëw ci wasifa yi am na ñu koy weddi naan yonent bi nan lay ñëwee almadi ñëw yoof ñëw kàmbureen ñëw fas mbaaw ñëw cees xanaa yonent bi day soppeeku <laughs> benn caméra mooy tiim benn nit ci almadi gii di ko film nga dem ba Fuuta ñu koy seetaan nga dem podoor ñu koy seetaan nga dem Wilingara ñu koy seetaan nga ñëw dakaar ñu koy seetaan te benn nit moo toog di wax benn caméra tiim ko tubaab bi gëmul yàlla toog ci kaw balcon am naan jë n'existe pas tubaab bi moo defar caméra bi su ko yàlla mayee tubaab bi ko gëmul war koo may sayduna muhammad mi nga xam ni wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmudi wa huwa habibu yonent bi day moroom seydil xaaji taala anhu soo gisee lépp lu mu tagg yonent bi wayee ko yonent bi ni mu ko waxee noonu la amee parce que moo wax ni dafa mel ni bi may tagg yonent bi yonent bi moo ma feeñu ni ma Maodo bindee ma nii nii laa mel damay bañ nga juum ci way wi alaaji malik mooy posé Seydouna Muhammad question ni ko dama laa bëgg a tagg damaa bëgg nga wax ma sa bët yi nu mel ma bind ko mu ni ko bindal sa bopp bi nu mel yaatuwaay bi bindal alaaji malik bind wa rasuhu jaa من يمن ومن عبر أزناه عينا حبيب الله من رتم صلى خي لم دندف من والكف ما دربت أنثى ولا ذكرا ما خادما عابا من عيب ولا يلومي على جمالك ديكو بوزي كيسيون نيكو دما بغا تاغ وخما ما نو مل سخت نان لا ميلون مي مودو بودي وخت خيتو يوننتي بي فوم كو خامي كان مو خينتو يوننتي بي نيو نتليكو على جمالك مي نيت دانا جامو يالا با امتي سي بروم لو خامني كين اموكو jàkkaarloog yonent bi luy sa xet yonent bi ne ko lii mooy sama xet Maodo bind wa riiquhu laysa riixul miski yusbihu bismillah Cheikh Seck ñu lay ziar salaamaaleykum képp ku fi géewal hadratul jumaa mbaa nga géewal fi wasifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ñëw yow tam. ngi xalaat instant mu ngi xalaat lu mu am na ñuy weddi ni yonent bi du ñëw ci wasifa yi am na ñu koy weddi naan yonent bi nan lay ñëwee almati ñëw yoof ñëw kàmbureen ñëw fas mbaaw ñëw cees xanaa yonent bi day soppeeku. <laughs> instant mu benn caméra. ci almadi gii di ko film nga dem ba ñu koy seetaan nga dem ngara ñu koy seetaan nga ñëw dakaar ñu koy seetaan te benn nit moo toog di wax benn caméra tiim ko tubaab bi gëmul yàlla toog ci kaw balcon am naan jë n'existe pas tubaab bi moo defar caméra bi su ko yàlla mayee tubaab bi ko gëmul war koo may sayduna muhammad mi nga xam ni wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmudi wa huwa habibu yonent bi day moroom seydil xaaji malik radiallahu taala anhu soo gisee lépp lu mu tagg yonent bi wayee ko yonent bi ni mu ko waxee noonu la amee parce moo wax ni dafa mel ni bi may tagg yonent bi yonent bi moo ma feeñu ni ma Maodo bindee ma nii nii laa mel damay bañ nga juum ci way wi mm, alaaji Malick mooy posé Seydouna Mouhamad question ni ko dama laa bëgg a tagg dama bëgg nga wax ma sa bët yi nu mel ma bind ko mu ko bindal <laughs> sa bopp bi nu mel yaatuwaay bi bindal alaaji Malick bind wa rasuhu jaa من يمن ومن عبر أزناه عينا حبيب الله من رتم صلوها يلوم داندف من والكف ما دربت أنسا ولا ذكرا ما خادما عابا من عيب ولم يلومي على جمالك ديكو بوزي كشيون نكو دمالا بغا تق وخما نو مل سخت نان لا ملون موضو بودي وخيتو يوننتي بي فمكو حبي كان مو خينتو يوننتي بي نيو نتليكو على جمالك ني نت دانا جامو يالا با امتي بروم لو خمني كن اموكو jàkkaarloog yonent bi luy sa xet yonent bi ne ko lii mooy sama xet Maodo bind wa riiquhu laysa riixul miski yusbihuhu boolu njëkk faa ma leeral nag man bayti yi ba ma ko liire gisuma fu Alaaji Malik waxee ni yonente bi feeñu na ma wax dëgg fa yàlla man gisuma man gisuma fu mu waxee ni damaa gis rek muy tagg naan yonente bi nii la mel nii nee la mais moom nag nee na nee na moom moom Modou Fall nee na yonente bi daa feeñu alaaji Malick yonente daa feeñu alaaji Malick moom moo wax loolu mais li ma gis alaaji Malick mu bind waxul foofu yonente bi feeñu na ma dafa bind rek di tagg yonente bi loolu laa gis naam waaw masaw waaw comme ne yonente bi moom mënul jottali diina ndax yonente bi tubayam daa gàttoon waaw yonente bi tubayam musul paase dojooram da daan cëkkal mu ne maa asfaral kaabayni minal izaari fa finnaar mu ne bépp tuba yu góor bu paase dojoor safara la comme bu fekkee ne ku tubayam gàtt mënul jottali diina rek comme ñu ne de mënul jottali diina comme de suñu mag yi fi nekkoon yëpp tam kenn warul jottali diina ndax suñ tubaa tubayam daa gàttoon waaw musul buubu alaaji maalik tubayam daa gàttoon <laughs> musul buubu waaw ñoom ñëpp <laughs> yooyu moom ay waxu kasaw kasaw la Modou Fall nee na day argumenté <clears throat> wazifa bu ñuy wazifa yonente bi day teew Jibril Aboubacar Umar naka la yonente bi mën a teewee ci jàkk yooyu yëpp di wasif en même temps nee na loolu lay argumenté ñu dégluwaat ko man mooy bëgg ñuy mooy bëgg ñuy dégluwaat ñaari yoon ba ñett bu ko defee n'existe pas tubaab bi moo defar kamer da nga géewal fi wasifa yonent bi sallallahu alayhi wa day ñëw am na ñuy weddi ni yonent bi du ñëw ci wasifa yi am na ñu koy weddi naan yonent bi nan lay ñëwee almati ñëw yoof ñëw kàmbareen ñëw Fass Mbaaw ñëw cees xanaa yonent bi day soppeeku <laughs> benn caméra mooy tiim benn nit ci almadi gii di ko filma nga dem ba ñu koy seetaan nga dem Podor ñu koy seetaan nga dem wili ngara ñu koy seetaan nga ñëw Dakar ñu koy seetaan te benn nit moo toog di wax benn caméra tiim ko tubaab bi gëmul yàlla toog ci kaw balkoom naan jë n'existe pas tubaab bi moo defar caméra bi su ko yàlla mayee tubaab bi ko gëmul war koo may sayduna muhammad mi nga xam ni wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmudi wa huwa habibu <laughs> yonent bi day moom ah, loolu numéro سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه بروف بروف لا سو غيسه ليب لومو تاغ يوننتي بي وايي كو يوننتي بي نيمو كو واخي نون لا امي باسكو مو واخ ني دافا ملني بي ماي تاغ يوننتي بي يوننتي بي موما فينيو غيسوما لا لا مو دو بيني ما ني ني لا مل دا باي بن نجوم تي واي وي gisuma ko ci baytu bi de. Alaaji Malik mooy posé Seydouna Mouhamad question ni ko dama laa bëgg a tagg damaa bëgg nga wax ma sa bët yi nu mel ma bind ko ko bindal sa bopp bi nu mel yaatuwaay bi bindal Alaaji Malik bind wa ratsuhu jaa min yumnin wa min ibarin uznaahu ayna habibillahi min ratami sa loxo ya daan def mu ne léegi yonente bi dajeeg Malik Alaaji Malik dajeeg yonente ci xel quoi ci xel Alaaji Maalik awul lu war a laaj yonente bi lu boppam boppam naka la mel du toll li nga gis yonente bi salaa salaam yow da feeñu kay koy feeñu noo koy laajee sa bopp koy feeñu kay gis nga ko moom nee bi moo feeñu Alaaji Maalik ba pare di ko laaj sa bopp naka la mel mais yow ku koy laajee boppam man Yunus naka laa koy laajee boppam te maa gis bopp bi maa ngi koy gis. naka laay laajee yuuru sa koppati nan la mel te maa ngi gis koppati bi lii moo lay woon ni day meew lii moo lay woon day meew gis nga booy meew ci biir meew yi rek dañ lay kepp nga ne yonente dafa feeñu alaaji baali lu feeñu mooy loo xam ne nekkul gént loo xam ne dëggantaan da ngaa jàkkaarloo du gis naka nga may feeñu pare ma lay laajee sa bopp nu mel te feeñu nga ma mu mel te feeñu nga lii rek war na wane day meew te ñaareelu mooy alaaju maal lu toll nga gis yonente bi amoo loo xëy laaj lu sa bopp <laughs> laajoo ko leneen ci mbiru diine laajoo ko leneen ci ci ci ci luy xew leneen ci ci amul loo laaj yonente bi sa bopp nu mu mel yonente bi amul lu mu war a wax alaaju maal lu dul rek boppam bopp bopp bi nu mu mel ak kanam gi nu mu ak xet bi nu mu mel xet xet loolu ba njëriñ la amul diine lislaam xetu yonente bi bu ñu xamee xeetu yonente bi loolu la lañ mën a apporter lan lan lan lan lan lan la mën a yokk ci diina bi bu ñu xamee xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy meew ci seen biir meew rek képp leen foofu léegi yaa Modou Fall moom mu ngi jéem a layal mu ngi jéem a layal ne yonente bi bu ñuy wasifa ak Aboubacar ak Umar ak Ousmane loolu mën na nekk yonente bi day teew ci jàkk yëpp mu misaale ko benn caméra boo xam ne mooy alimenté comme tey benn caméra boo xam ne RTS marché Sénégal bu amee mooy alimenté yeneen télé yëpp moo koy jox TFM moo koy jox Sen TV moo koy jox Walfadjri moo koy jox moo koy jox moo koy jox moo koy jox misaal boobu la joxe ok Modou Fall baa ma fekk la sa misaal donte misaalu dof la misaalu mikke mais baa ma fekk si la sa misaalu boobu. comme caméra bi laa chaque ni am na caméra buy alimenté ok ku am na jàkk bu yonente bi salaa salaam di teew du teew maanaam yonente bi am na benn jàkk principal moom boo xam ni foofu lay teew loolu moom am na ci waxam léegi Modou Fall ban jàkk la yonente di teew jàkk principal bi nga xam ne fa lay teew ba mën a multiplier wu après dem ci yeneen jàkk yi boobu ban jàkk la Arabie Saoudi moom du du Makka moom du Madina parce que foofu kenn du fa wasifa Kaaba moom kenn du fa Madina moom kenn du fa wasifa Jérusalem aussi kenn du fa wasifa ñetti jàkk yi gën ci lislaam kenn du fa wasifa léegi bu fekkee yonente bi da nga ne loolu lu mën a nekk la yonente bi day teew benn jàkka ba pare multiplier wu nekk demaat jàkka yi nekk fuuta fuuta nga xam dañuy wasifa rek fuuta ñu ko dàq wasifa ci kaw suuf Fuuta daanaka jàkk dëkk boo dem dañuy wasifa jàkk bu ne dëkk boo de dañuy wasifa jàkk bu dañuy wasifa moom nee na loolu mën a nekk la mu indi benn raisonnement wu Mickey indi caméra mu ne benn caméra mooy alimenté yeneen ka nekk nekk Casamance di ko seetaan comme ça veut bi am na fenn fu muy nekk nee na caméra bi fenn fu muy nekk léegi bu fekkee yonente bi ko am na benn jàkk bu muy nekk ba bi alimenté mooy alimenté yeneen jàkk yëpp mooy joxee yeneen jàkk yëpp legi wax ñu jakk principal bi nga xamne ne yonente bi mom, foofu lay nek jakk jooju bon jakk la ban jubaa la bu marok la wala bu tiawon la wala bu gunas la wala bu daka la wala bu ban la loolu bëgg nañ ko xam ni nak question la de ya indi ya indi sa misal nak ya indi sa misal fekk naa la ci misaal boobu ban jàkka principal yonent bi salaa sallam di allumer yeneen jàkka yi di ko jox yeneen jàkka yi ñaareel bi mooy Jibril moom it ndax Jibril moom it beneen caméra la comme Jibril beneen caméra lay que yéen waxoo la yonent bi salaa sallam kese mooy teew de da ngeen a yonent bi ak Jibril ak Aboubacar ak Umar léegi Jibril moom beneen caméra lay doon. moom it beneen caméra buy alimenté yeneen yi Aboubacar moom it beneen caméra lay doon buy alimenté yeneen yi Omar moom it beneen caméra lay boo xam ne moom mooy moom mooy alimenté yeneen léegi tontu bi bëgg nañ ko nga nga ñëw ci nga tontu yaa axi ñii dañuy caaxaan yaa axi gis nga Sénégal xam nga moo leen rey Sénégal à chaque fois seeni wax yëpp moom mooy Yunus après nga jël père international Sénégal seen wax yépp moom mooy diw moo ko wax rek dëgg la problème Sénégal mooy mënuñu weddi sëriñ maanaam sëriñ mënul wax ñi ne ko da nga juum lii mooy problème mu majeuru Sénégal mooy sëriñ du juum sëriñ lu wax noonu la donte Alaaji Malik moo indi wasifa rek moo ko dugal biir Sénégal rek comme wasifa dafa problème bii la sénégalais yi yaa xi yow ay saxaaba ngay tudd ñu ne la saxaaba bi juum na mais nga ne yow noono alaaji Malick moom warul juum te saxaaba moo ko gën dañ lay tuddal Umar ne Umar fii dafa juum tuddal la Ousmane ne fii dafa juum tuddal la Ali ne fii Ali dafa juum Abdullah nu Mas'ud exemple falaq ak naas boolewu ko woon ci Qur'an boolewu ko woon ci mushafam boolewu ko woon ci kaamil bu mu bind parce que dafa jàppoon falaqi naasi ñaan la musluwaay la comme auzu bi kalimaatillahi taamaati loolu la jàppoon mais dañ naan Abdullah Masud juum na mais ci fin bi sax dellu na ci ginnaaw après ba ko saxaaba yëpp xamalee ni lii yeneen saxaaba yi xamal ko ni yonente bi nee na ci quraan la bokk da koo boole ci quraan démb jàngal nañ leen xadisu Abu Hurayra ba mu ne dagan na nit ki yokk ci njàppam booree jàpp ba dojoor jàpp ba óom waaye yeneen saxaaba yi ànduñoo ak moom yeneen borom xam-xam ba ñëwee dañ dafa juum mais ñoom nee nañu seenub sëriñ moom du juum sëriñ du juum du def erreur mais problème majeur bi lañu am ak mooy sëriñ bi bu waxee noonu la Sénégal duñu weddi sëriñ Touba duñu weddi Alaaji Malik sëriñ Touba bu nee Kaaba gi toxu da jóge Màkka ñëw ci man dinañ fexe ba layal ko xam nañu loolu amul de xam nañu Kaaba gi musul toxu musul jóge danañ fexe ba yal ko noo baatin la wala nelanoo fa muy waxee wala ne la garab ba ca aljanna wala ne la kaaw gi ñëwaat na mais dafa dellu vite fait la ci benn seconde la loolu yàlla moo koy maye nañ fexe ba layal ko sëriñ bi day juub loolu mooy problème sénégalais sénégalais moom sëriñ bi warul juub alaaji maalik nga dafa juub non te aboubacar ya axi moo gën alaaji maalik aboubacar day juub umar day juub ah umar ba aboubacar di xeex ak murtaddiin ñu bañ a joxe azaka ginnaaw yonent bi salaa sallam Umar dafa ne man lii gisuma ko gisuma nga xeex ñoom Umar d'accordul ak Aboubacar Aboubacar ne man du ma tàqale ka bàyyi julli ak ka bàyyi azaka ndax yàlla a chaque fois daal aqimu salaa wa aatu zaka na ngeen taxawal julli joxe azaka comme ku bàyyi azaka damay xeex ak moom. ginnaaw loolu Umar dafa dem ba reconnaître moom moo nekkoon ci erreur mu daal di topp Aboubacar waaye yow sab sëriñ day taxaw ne kaaba gi toxu na jóge na Màkka dem na bool. ngal ko ko que sëriñ ko wax rek dëgg la sa sëriñ day taxaw indi wasifa ne wasifa ben mbalan bu wex buñu tuddu yalla yonenta bi day tew abou bakkar Jibril Umar ah kum ko mom kum ko alhadj malik ko wax rek lolou deug la bañas nee na ko gis dug aljanna ana preuve nga ne comme que Bañes moo ko wax rek deug la problème bi ñun senegal la ñam moy ay mag yo xamne duñu joom ñu dañu japp dañoo jàpp mag yo lepp lu wax rek deug la dañu sel waaw moo ci ay toxi do rek lañu deug ci mbir yi rek la dëkk léegi Aadi Ñas Modou Fall wuti leen ay preuve moo gën ngeen toog fii naan ñu xaw ma ay xaw ma domadaam yi boo ko yeqee wutal nàpp bu weex ak nga lal ko ceeg xaw ma soxna si bu sañsee ne ko lalal naa la yooyu soay wut leen ay preuve diine ji preuve la laaj islaam jaamu yàlla pour ñu nangu ko ci ñaar la benn mooy jaamu yàlla bi na ko def te yàlla kese tax dafa war a sell ñaareel mooy jaamu yàlla bi dañ cee war am accordu yonente bi sallallahu alayhi wa jaamu yàlla boo xam ne amoo ci accordu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla boobu du sell ak noo ko mënta tuddee jaamu yàlla boobu yàlla da koy dafa mel ni tey ñu jox la examen ñu ne la yow lii lañ la jox programme baa ngi lii nga war a jàng ci lii lañ lay examiner yow nga bàyyi ko fa dem jàngi leneen boo ñëwee est-ce que nañ la laaj ci loolu duñ la laaj ci loolu bidaa noonu la mel bàyyi leen di wax naan noo lii du bidaa parce que julli kese la tudd yàlla la mais loolay bidaa yonent dafa ne man sa fii amrinaa dafa ne yonent dafa ne suñu diine ji ku ci dolli leneen lu ci bokkul diine la wax ku ci dolli leneen lu ci bokkul dañ koy delloo dañ koy delloo. xam nga ci accord yonente bi dafa mel da nga ne yonente bi wax bu waxoon diina ji man na noo des na loolu moo tax bidaa garaaw bidaa da nga yonente bi am na lu mu fàttee joxe am na lu mu fàttee joxe man maay ki ko remember man maay ki ko indiwaat. man maa ko man man maa ko génne man maa gën a aay yonente bi wala yonente bi sallallahu alayhi wasallam man maa ko ëpp daraja parce que daa fàtte woon joxe man maa leen ko jox la moo tax bi daa nekk lu garaaw jox naa leen misaal keroog koo la julli tisbaar julli juróomi ràkk juróomeel ràkk bi looy jàng faatixa nga fay jàng yàlla ngay tudd faatixa ngay jàng subhaana rabbil azim ngay wax boo rukoowee subhaana rabbil ala ngay wax boo sujootee yàlla rek ngay tudd waaye sa jëf ji bi daala ndax dangaa def loo xam ne yonent bi jàngal ko yàlla jox la ci accord yow de salaa salaam ci accord moo tax mu nekk bidaa léeg-léeg nag ñu ne la non tiktok bi bidaa la kuddu bi ngay lekkee bidaa la koppati bi nga sol bidaa la oto bi ngay dawal bidaa la man la yaa xayti bidaa condition yii la benn alquran joxewu ci accord yonente bi joxewu ci accord te ñaar dañ ciy wut tiyaaba te ñett ci jamono yonent bi mu amoon te defu ko lii mooy bidaa li ngay jaamoo yàlla te amoo ci accordu yàlla ak accordu bi ba pare jamono yonent bi mu amoon te defu ko lii mooy bidaa jamono yonent bi ndax amoon nañ jàkk bu ñu wasifa amoon nañu jàkk ndax amoon nañu mbalaan bu weex seen jamono amoon nañu mbalaan bu weex ndax amoon nañu bisu aljuma amoon nañu bisu aljuma loolu amoon nañ ko lool seen jamono amoon nañ ko ak saxaaba yi mais est que def nañ ko defuñu ko loolu bi daal mais quant à TikTok bii ma toog di wax ka nekk ka nekk senegal di ma dégg ka nekk Europe di ma dégg ka nekk Asie di ma dégg ka nekk Amérique di ma dégg est-ce que amoon na ci jamono yonente bi amul yonte bi su amoon da koy utiliser wax ak waa Rome wax ak waa wax ak Persi wax ak waa Cham wax ak waa Éthiopie wax ak ñëpp di dégg benn yoon sa waaye lii buy dox ak di avancer ak di développer loolu du bidaa bi jamono amoon avion da koy yéeg mais yonente bi jamono mënoon na wasifa amoon nañu ay nit yu wasifa amoon nañu jàkk bu ñu wasifa amoon nañu mbalaan bu weex bu ñu mën a lal waaye defuñu ko ñu ne loolu bidaa la ñaari comédiens yi tontu boobu laa leen tontu mais ñaari comédiens yi kan moo tane pour yéen kan moo ci tane. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. kan moo ci tane quoi naam daanaan waaleykum ñu lay ziar. ziar ñu dégguñu la. xayaakallah xayaakallah bisimilah. waaw ña kii di li nga xamante indi nga ko. lay ziar yaa ngi si jàmm. maa ngi sant alhamdulilah. Mm-hmm. mooy ñaari comédiens yi nga indi ñaari comédiens yi moom wax dëgg yàlla mm-hmm. boo xoolee ba xool ñun ñaa ñu ay doykatu maatu lañ kee day wax pour lu neexal poosam ndax buñu génnee ta ci jox ko kee tim day wax pour woo ndax moom dafa nekk dafa nekk mu xaddam moom mu xaddam dafa am ay taalibe ndax su deful su leer loolu day ñàkk ay taalibe mm-hmm. kenn moom day def pour lu neexal loo xamante ne su paree bu génnee gars yi neexal ko te ñaar nga xamante ñu neexal nekk sa bopp nga kenn nekkul boppam ndax Aly bu fekkoon ne deful loolu après tijaan day perte taalibe yi nga xam ne am na ko kee tamit bu deful loolu tijaan tijaan yi nga xam ne yor seen xaalis day yëkkati di joxe duñ ko jox looloo tax mu ñëw def lool waaye almadib goo xam moom exemple bi mu joxe benn caméra bu nga xamante ne moo ñëw loolu di di waa léegi ban ban caméra ban caméra la yonente bi kii nii soo ko partagé yeneen jàkka yi léegi bu boobu nañu caméra bi nga xamante ne moo tiim yonente bi direct après nag ñu partagé ko yooyu kon yonente yi bëri nañ de caméra yi bëri nañ de te loolu benn télé boo xam ne TFM la lay doon de ñu partagé yeneen télé yëpp est-ce que ñi ñi ñi ñi feeñ ci télé bi ñooy feeñ ci télé bële ñi feeñ ci jàkka ji ñooy feeñ ci jàkka jale loolu xalam xal xal xal mu ñaaw sax nangu ko wax ma la xal mu rafet mhm. kii Yunus beneen bi ma ci yokkaat kii xaw ma kii aarama nee na nga jël ko xaadimatul quran xaw ma mooy ci nekkoon ci live wa rahmatullah sa yenn gaay nag man bëgguma la fi dugal